3 et 2022 euh, euh, voilà du plus grand au plus petit nii la dem nii la ñu ko daal di tëralee groupe Futurs média moo am ci lu toll ci 162 millions euh, de média am lu tolloon ci 113 millions voilà E-Média 113 millions des médias 97 millions Walf 90 millions voilà 3M Universel cette cette TV voilà am lu toll ci 75 millions Africacom am lu tollu ci 60 millions groupe Sud communication am ci cinquante euh, sept millions Seneweb cinquante et un millions voilà Dakar Actu quarante huit millions Leral TV am lu toll ci quarante voilà quarante euh, quarante et millions donc classement baa ngi noonu mu nekk aide bi nga xamante ni moom la ñu jotoon euh, ci diggante deux mille vingt trois ak deux mille vingt deux donc mu nekk mbir bi nga xamante ni classement bi ndax jàpp nga ni xaalis bi ni ñu ko doon joxee li nga xamante ni mooy këru taskatu xibaar yi jaadu na lu leen neex la ñu def jaaro lu leen neex la ñu def xam nga lii dëkk bu séré jaaro lu doxee nii. Hmm. déedéet dëkk bu séré du doxee nii. ko non non ça ça ça c'est pas ça tey jii lii nga toog ni groupe GFM cent neuf millions immédiat nga ne quarante sept millions Maimouna Ndour Faye quarante millions waa Kër Bougane quarante millions. ñoom Mamadou Ibra Kane mooy African sunu làmb start nga xam ne ay journaux ñu jox leen trente millions leeral vingt Seneweb 26 millions Dakaractu 24 millions Groupe Sud Communication 22 millions Walf 20 millions lañ jox Walf mais li gën a reetaan lu mooy autre autre ñu def 1 milliard 555 millions. Mm-hmm. nee na tamit ñooñu moom mooy ñi nga xam ne mooy mbojo mbojo ga sooy <laughs> mais xam nga. xam nga ñi ñi tojul. xam nga paradoxe mënul weesu lii. ñi nga mm-hmm. xamante ne normalement kay ñii ñi nga xam ne ñoo jiitu par exemple ñoo nekk peloton de tête bi mais yaa xayti bu doon koppar bi ci presse bi kay xaaj bi kay waroon nañ koo jël. Mm-hmm. waaye ñoom li ñu leen séddale matul sax xaaju koppar bi et après on nous dit ministre wax am na huit cent et quelques millions yoo xamante ne kenn xamul fu mu dugg non non dañ ko dugg ci ci ci wàllum structure yi ak ñoom ñi nga xamante ne ñoo leen na ni sax dina ci ibbi et quelques millions dañ ko ñoom seen biir waa ministère dañ koo dóor dañ ko organiser ay séminaire ay structure lañ ko dugal nangam ak nangam ak nangam mais li li nga xamante ne moo am ci aide à la presse warul bett kenn parce que yàgg nañ koo wax te ma xamal la benn affaire tamit am na kër yoo xamante ni yëngal na ko jamono ji si hmm. xam nga loolu kër yaa ngi yëngatu am na kër yu yëngatu ndax xam nga lu <laughs> am ñoo xam ne dañoo déclaré ñoom montant bi ñu recevoir xam nga tey ñaan ñi liggéey jaar hmm. koppar bi yow yaa compte bi peut yow yaa ko yow yaa ko jot wala yu ni mel mu nga am Mansour am ñeneen ñoom ne ñu ngi ci suuf léegi ay pat ay ay ay ay kilifa lañ ci kër gi quoi aide bi dugg yéen ngeen encaissé trente millions ma ñëw na gars yi vingt millions lañ encaissé tey kër yi génn nag kër ga yëngatu na tey kayit bi génn kër ga yëngatu léegi su ko defee ñu naan ah saa yow ndekete ba nga ñu waxee yaa ngi bokkoon bu ne 10 millions si gën a naan. <laughs> moo tax kër yaa ngi jax jaw moo tax moo tax jub rek am solo noo si am na ñoo xamante ne te loolu dara wane ko lu dul xam nga lu toll ci un milliard et quelque nga ne da nga koy séddale presse ba pare ne dara du ma ko bind kenn du xam lu sa mbokk am foofu la jubari commencé. Mm-hmm. te alal bi moom moo leen ko. d' abord buñ buñ delluwaate ci aide à la presse man dama jàpp ne c' est pas du tout normal nga am sa organe de presse chaque at bu jàll sàkk ñu tibb lu ñu toll ci koppar tuur la ko amul gestion amul dara bu la neexee nga boyal jëndoo ci micro jëndoo ci dara kii dem takk ji si jabar kii dem ngénte ji si kii dem céetal ji si kii dem jël si oto kii dem takk ji si ñetteel kii takk ji si ñaareel amul benn sens. noonu et eh, c' pour la presse si noonu lañ ko doon doxalee. Mhm. yow xaalisu presse yow fexeel ba fexeel ba ni mu leen dimbalee mu jëm ci presse bi. Mhm. maanaam tey jii ki nga xamante ne ku nekk day estimer ay besoins li mu soxla bu dee ay micro la wala ci ay caméra wala ñu mel mais après booy jaar nga jaay nga xool looy def. Mm-hmm. bu dee décor la wala lu ñu mel ak yooyu noonu ñu xool ñu lay boole équipe yoo xam ne def ko en tout cas liñ lay jox ci biir presse bi lay jëm muy jël enveloppe bu vingt millions wala enveloppe bu trente jox leen ko ma dóor ko sama poche bu subaa ma paasal sama doom mu génn bi ñëpp kenn ñeewal kenn waxul pour pour mais ñoom ñëpp dañoo boo leen gisee conditions yi ñu nekk bokkul sax ak seen emploi ak ñi condition bi ñu nekk tu trouves ça normal. c'est pas du tout normal loolu nag li ko waral mooy tey jii façon bi ñu ko doon gérer dañ doon entretenir en même temps benn patronat boo xam ne dañ leen di bëgg a téye ñuy leen neex ak leen naqari maanaam benn patronat boo xamante ne da ngay fexe ba am leen soo leen amee nag li nga bëgg ñu defal la ko ñu defal la ko. Mhm. loolu moo waraloon tey jii aide à la presse genre boobu nag lañ ko doon téye di ko jouer parce que boo gisee montant yi dañ ko doon joxee mi varié d'un groupe à un autre nga xam ne am na lees waxul. Mhm. teguñu ko ci mbiri contrat te beneen mbir bu ci am tamit dañuy laaj. pour nga am ci aide bi fii bor la bor moo gën a yéemeeti lépp bor yi moom GFM moom moo jël raw gàddu <laughs> bi li mu <laughs> li mu amee lempo bi ñëpp boo ko dajalee quarante pour cent yi daanaka GFM moo ko moo ko amee mais li dinañ dinañ dinañ ci ñëw kii. Mm-hmm. Euh, léegi boo boo boo boo demee ci ñi nga xamante ne tey jii niñ ko niñ ko ni nga xamante ne noonu lañ doon séddalee xaalis bi tey jii mais boo jëlee ci biir euh, critères yi ñu lay laaj daf ci amoon foo xam ne dañ naan tuuti fiscal. maanaam da ngay indi quitus fiscal bi wane ne mais léegi loolu tey jii man li ma jaaxal mooy entreprise yi daan ñoom dañoo nekk en règle ak fisc bi léegi ñoom fañ daan jëlee kayit mais ñoom est-ce mhm. yi ñu en règle ak fisc bi léegi kan moo leen jox kayit boobu wane ne ñoom daan nañu fay l'impôt loolu loolu la jamono ji dañ daan wax ne ñoom ñi ngi en règle ak fisc bi c' pour vous dire que am na ñoom dinañ yóbbu ay contrat te amuñu mhm. am na ñoo xam ne kayit yi ñu leen laaj euh, ci inspection du travail ki ñu mel ci jëm ci contrat yi contrat indi dara baaxu ci te dañ koy conte dugal ko ci document pour mën a am aide à la presse li nekk ci biir aide bi moo bëri njuuj njaaj beeg tappale bi dafa bëri bëri te régime bi fi nekkoon gisoon ko dëgg ci tànkam waaye léegi loolu nag bu amee ba noppi tey jii ñuy ñëw ne léegi aide bi kat gisuma ci lu leer dama koy téye nëggandagu ba ci kanam. léegi ñu commencé di xataraayu. Mhm. parce que waxtu wi nag xataraayu bi li ko dëgg li ko waral dëgg dëgg dëgg jaara waxtu wi daan na fekk ni gars yi encaissé nañ seen i enveloppe de. ah si heure bi daan na fekk ñii dóor nañ ay vingt ñii laal ay trente. gars yi commencé suqali ko tuuti nag ñenn ñi dalasi yëgali seen kër ñenn ñi changé si oto <laughs> te presse bee ko tax a jóg. xam nga takk soxna yi commencé di si di si di si di si kalangaatu mu romb jaaree xale yu ndaw disquette yu ndaw yi di ci kalangaatu disquette yi. <laughs> pendant ce temps jeune reporter. ci ci kër yi di sonn du souffrir voilà. mais mais xam nga jaara. Mhm. loolu moo reetaan lu ci affaire bi quoi. moo tax da ngay da da ngay xool ba si ak mooy nii véritable mafia la quoi. Mhm. am benn état boo xam ne dafay nekk. léegi man daal damay organiser ma damay am sama groupe de presse te te gis nga autre bi jaara gis nga bu ñu fexee ba liste bi génn dina neex trop doom dina neex ndayam bu baax a baax mooy ñeneen ñi diñ ci gis nangam TV 10 millions wala 8 millions nga gis si caaxaan TV 15 millions nga gis si nelaw TV 2 millions. mbese mbese gu gi. mbese mbese gi ak non ak artistes yi dañoo am seen seen site. Hmm. ay artistes yi am seen site. ak euh, yenn yenn reporteru ndaw yeeg ñi ngeen ni nom de domaine kese nga indi. ngay door page Facebook rek la ñu yor. ngay door la cinq wala dix millions. Mm-hmm. dama ne bu ñu génnewoon liste bi ci intégralité bi yëpp yëpp mais da ngay toog nga reetaan ba sonn. Mm-hmm. am na site yoo xam ne dootoo xamati sax fu ñu fu ñu jamono ji. Mm-hmm. waaye léegi loolu lépp ay milliards yoo xam dañ koy jël jox ko benn groupe man damay organ damay am sama groupe de presse rek léegi business laa koy def boo xam ne dama koy teg fii di ko businessé léegi nguur gi daal di changé ñu am ñu bees ñu fi ñëw ne léegi lii dama koy teg nële en attendant ma xool ban ban ban ban yoon laay lay lay lay gën a mën a téewaate aide à la presse bi yéen ngeen du fi dalee nan waaw dañoo bëgg ray presse bi dañoo bëgg non dañoo bëgg ray presse te ñoom ñoo ray presse ba pare koo xam ne du ñëpp nag parce que am na suñu euh, xam nga ne ñi ngi ñi ngi góorgóorlu mais ñi nga xamante ne dañuy encaissé te li ñuy encaissé jëmalewuñ ko ci presse bi ñoom ñoo ray presse bi te lii gën nii lii rek la ñu wane mais autre bi looloo gën a graw est que xam nga ne ni bu ñu ko toppee wuñ sës dina am ñoom sa prison mën na leen see fekk. Mhm. parce que détournement mi ngi ciy xeeñ ci suuf. Mhm. parce que bu ñu nee huit cent et quelques millions dañ ko dëggal foo xamante ne leerul delluwul ci presse bi ça veut que euh, bu koppar bi génnee ñoom ñuy séddale patron de presse yi ñoom ñi nekk ministère ñoom daal ñu ci gis seen bopp. kon aide bi yàgg naa nekk ndimbal ndimbal la woon ñoom seen biir ñoom ñoo dimbali koo presse bi waaye dimbaliwuñu presse bi. Mhm. léegi nag situation bu ni mel bu amee moo tax ma ne. bi kayit bi génnee tey bëri na patron yoo xam ne fi ñu toll nii ña doon grève bëri na si ñoo xam ne fi ñu toll nii dañuy ruus siggi xool nit ñi ah mais si yow no kayit bi génn après loolu sagal na indi bor nga xool kayit bi génn ñiy wax pare gu ñu après génne wa gars yi génne bi nga xamante ne moo def bori mhm. léegi nga toog looy wax da ngay toog def ni parce que yéen yéen a ñëwoon jël seen benn jour ngeen ne def journée sans presse jël seen euh, écran télé ngeen teg fa benn waaye Alpha Blondy ne journaliste xaw ma torturé journaliste nangam ak jël affaire bi yóbbu ko fu mu mais te ñuy wax noonu noonu noonu yéen nekkoo leen en parce que yéen ngeen bor euh, fixe bi ñenn leen quarante pour cent amal nañ ko bor li nga xamante ne euh, ci ci ci ci ci ci fixe bi car li ñu amee ñoom quarante pour cent ñoon amee mooy mooy GFM. Mm-hmm. RTS topp ci. D-Media daal di ñu doog doog a ñëwaat topp ci amee leen onze pour cent waaw léegi yéen yéen yéen ngi am ay bor yoo xam ne fayoo leen ko. ngeen taxaw ne yéen dañ leen jaay ci ci loolu tamit te chaque at ñu di leen jox koppar goo xamante ne te yéen am na ngeen bor fisu xanaa loolu mooy seytaane mm-hmm, mm-hmm. mais xanaa kay li xel doon nangu kay mooy bu ma leen jox kay damay xool en en fonction li ngeen amee ma bor comme ki ma jox vingt millions ma dagg dix yi dugal fële. mais jàpp nga ne aide euh, aide euh, bi cette fois-ci dina génn. dinañ ko jox ak euh, fisc yi ñu leen toppee impôt yeeg yeneen yu di jàpp nga ni euh, bu deux mille vingt trois deux mille vingt quatre bi mhm. ñoom dinañ ci jotee. non fonds d' appui bi dañ ñëwoon dañ koy jooyanti maanaam day doon fonds d' appui boo xam ne mën na service sax de garantie maanaam jaara mi ngi entreprise am mu dem ba benn moment mu ne kat man si kaw dama ko bëgg dafa léegi beneen studio fonds bi daal di lay garantie nga dem ci benn banque ñu lebal benn trente millions xam nga. ñu appuyer la am lu ñu la si dimbalee dugal ko banque bi lebal leen ngay liggéey di fay banque bi di yeggali ñu xam ne lii ci presse bi la jëm dañ ne woon dañuy changer joojanti anam bi nga xam te moom la ñu utiliser fonds yi loolu moo waral ñu mu jóge woon sax turu aide à la presse dem ci fonds d'appui à la presse euh, pour le développement xaw ma noonu la ñu ko tuddee woon. Mm-hmm. mu jóge ci turu aide à la presse dem tudd léegi fonds d'appui. waaw kon fond la woon dafay dem di appuyer ki nga xam ne moo di presse bi waaye fi ñu toll nii fond bi appuyer bi waaye patron de presse la dem di appuyer ji mm-hmm. loolu nag moo mooy mooy mooy erreur bi taxoon a jóg parce que mooy erreur bi am parce que lu ko indi mooy dañu xam nga xaalis dafa dafa doy waar bi ñu dugalee xaalis bi rek ñu ñu viser mooy patron de presse mais viser ñu presse bi en réalité mm-hmm. parce que bu ñu visé woon presse bi dina am neneen nu ko injecté ci biir presse bi mais patron de presse la ñu maanaam xaalis baa ngi nii nañ fexe ba am patron yi parce que bu ñu amee patron yi nañ am plateforme yi bu ñu amee plateforme yi lu ñu bëgg a dinañ ko def. léegi nañ am patron yi loolu moo indi situation bi am ni léegi nag gis nga euh, mi ngi nii boo boo boo xoolee tapo euh, tableau bi. groupe euh, groupe Futur Média ñu ne la amee na quarante pour cent si bor yi. Mm-hmm. Le Soleil pour cent si bor yi. des média amee onze pour cent ci bor yi immédiat euh, moom bëri bëriwul noonu fixe yi bëriwul noonu un pour cent la ci ñeneen ñi trois pour cent kon daal moom raw gàddu bi ki ko jël kenn la mooy. Futurs Médias Futurs Médias man damaa yaakaar dama ne Futurs moom ndax daawuñu fay. <laughs> moo tax maa ngi doog a comprendre kat ndeysaan ah. euh, gi sorti wu euh, ah. Birando ah, bi directeur bi voilà am na ci wàllu ak Bougane tamit am na ci pàcc wu rëy de. waaw Bougane tamit am nañ ci pàcc pàcc pàcc gu xam nga tamit ñooñu tey jii. Mm-hmm. noo mën daal Sénégal neex na ko a jaara yow nekkoo en règle ba taxaw di kaas di xataraay ñoom dañu waroon neex deret ñoom ñoom patron de dañoo waroon neex deret. loolu lay wax chaque jour. Hmm? mais dañoo gis ci euh, conseil des ministres bi. gis nañu hmm. président Bassirou Diomaye Faye euh, voilà euh, di woote waxtaan woote jubbante dëng-dëng yi nga xamante ni am na ci këru taskatu xibaar waaye tamit jamono ji woote na ngir ñu fexe naka la ñuy waxtaanee li nga xamante ni moo soxal presse bi ndax jàpp nga ni voilà journée sans presse bi dafa am lu mu lu mu lu mu wane ba tax président bëgg jamono ji ñu waxtaan. non du du loolu mais dafa wane esprit de grandeur la am. Mhm. maanaam yëkk bu bu defoon tey euh, confrant conférence euh, euh, nu ñu koy waxatee sax conseil des ba mu jeex te waxu ci su boobaa da nga naan ah président que da leen a ignorer wala minimiser leen. Mhm. mais le fait que wax ji daf leen naa delloo ci ministre de de la communication te tey ji xoolal ministre bi dem na jiite benn plateforme bu ñu ubbi pour déclaration groupe presse yi waaye tamit ci biir foofu si leen roof benn galgal galgal mooy kayit yi génn tey. xam nga tey jii moo tax ma ne leen bi ñu engagé bataille bi ak état dañoo juum c' est une bataille ki ne fallait pas engager waruñu woon a dugg ci benn xeex yow da ngay démarrer bërit rek nga ne journée sans presse non non dajaleen ci maison de la presse Babacar Touré ngeen def seen conseil de média après dajawaat leen ngeen takk brassard bu rouge dañuy bëgg ray presse te yéen wax yooyu nangu wala naa fay dañoo bëgg ray presse te yéen wax yooyu bu ñu leen joxee yéen koy dugalaat seen biir moo tax keroog bu may lire benn article bu Le Monde yi ma gis ñu ne Sénégal dañuy def journée sans presse te au moment bi ñu ko def am na 35 pour cent des jeunes reporters yoo xam ne ñu salaire may ne wax ji daanu na ñun <laughs> ñenn ñi seen bopp ñu jébaane waale leen. loolu kuu la de. Ah, mais mais dugal kuu boo xamante ne ah yéen dañuy Sénégal ñu ngi def euh, journée sans presse patronat bi moo ko woote te ñoom seen biir ndaw ñi am na ci pàcc boo xam ne amuñu salaire. Mm-hmm. nga gis contradiction bi nga xamante ne c'est-à-dire dañoo dem ba nekk sax demi risée boo xamante ne pour man rendre ñu si compte mm-hmm, mm-hmm. moo tax ma jàpp ne tey jii erreur la woon ñu dugg ci mbiru journée sans presse parce que état booy xeex moom xoolal tey notes yi génn yi ñoom yaakaaroon nañ ko génnee nañ leen bori génne leen ku nekk la nga encaissé 2023 ku nekk la nga encaissé kër yi di jax-jaxee fi toll ni <laughs> ku nekk naan jaara ndekete encaissé nga lu ñu toll te man xawuma ko <laughs> nan naan jaara ndeke yaay turian dëgg dëgg yeneen dix millions yi ci des jaara ana yeneen dix millions jaara fii daaw nga ñëw nañu du ma leen woon chèque waaye encaissé naa vingt millions quoi gars yi li ñu jox bërul maa ngi kaas ndekete jaara ñamal la jox ñamal leen ñamal leen ñamal leen gars yi di séddoo ñenn yi commencé am nangam ak nangam tax moo tax euh, je me dis que bi jub rek moo wóor moo wóor mm-hmm. mais presse bi suñu problème dëgg dëgg dëgg du yomba rek la waaw du yomba rek la mm-hmm. voilà ñu addu wax euh, ci leneen ndax tey li kenn ci yéen kaay yi xëyee tey euh, muy ancien président Macky Sall jamono ju ñu toll nii nag dañoo xëy fasal ne voilà mi ngi ci misère ginnaaw ginnaaw bi nga xamante ni euh, ku ne xam na ne surtout euh, euh, ancien chef d'état dafa daal di am ndax dafa am privilège yi nga xamante ne daf koy am mais jamono juñ toll nag nee nañ régime bi fi nekk daf ko daal di xàññ lu ñeel ñi nga xamante ni ñoo yor kaaraange ak yenn ci ñi nga xamante ñooy ay collaborateur am yi nga xamante ni jamono ñi daal dañ leen daal di daanaka bale bu bu bu baax a baax lu ni mel nag ñu xam ne ni ay privilège am daal dañu ko daal di wàññi bu baax a baax ban jàngat nga ciy def Moustapha critères yooyu sax mën laa d' accordul mhm. xam nga ci parce que statut ancien président mi mel ni euh,